Modou nuyu naa maa ngi lay siyaare mon frère ma. ci sant yàlla rek. ñu gis combat bu neex di waaj a jib si ci diggante Franc ak ki nga xamante ne mooy sox ndax nga gisee ñaari xale yi. maa ngi lay bëggee di bëggee waa Wassare Lamb yëpp. Franc Sokh combat la boo xamante ne nii fi ñu toll ñoom ñaar ci seen génération. combat bu metti la ci seen carrière déjà parce que il faut kenn kenn si ñoom daan dem bàyyi fi keneen ki. keneen ki mu fi bàyyi dafa war a repasser waat beneen examen pour dem fekk keneen ki ci kaw. c'est-à-dire un combat de déclenchement la ñoom ñaar ku ci nekk da ngaa say moroom ba ñu toll ci benn étape boo xamante ni kii daa war a dem ci benn chambre bu mag bi ñu nekk moo tax mu nekk combat bu metti moo tax mu nekk combat boo xamante ne ni combat bu jafe la du womb ndax ñoom ñaar bokkuñu façon bu ni bëree wala bu ñu ko bokkee ñoom dañuy attaqué mais bu ñu xoolee ci lutte simple franc wane na ci loo xamante ni gisuñu ko ci soq bu ñu xoolee ci lutte avec frappe soq na ci loo xam gisuñu ko ci franc. muy combat boo xamante ne combat bu bu buy metti lay nekk du yomb. mais ñu gis ki nga xamante ne Franc mooy Sokh moo gënoon bëgg combat bi ndax fu Franc nekk mu fekk ko fa ne ko kaa ñu bëre ba combat bi taxaw Sokh njëkk a dem waaj mais bi mu ñëwee gis nañ ne bëgg na combat bi te fonk na yokk na masse doole lëlu boole ci di waaj di waajal boppam Franc tamit kenn demul mu des Sokh lan mooy avantage am ci combat bi. nee naa la combat buy metti lay nekk. parce que dama leen a gis ñoom ñaan ñëpp pas plus semaine dernière. bi ma ñi ma ñaan ñi ma gis ñëpp dañoo pare bu lamb ji man maa la wax secret bi bu lamb ji nekkoon suba Franc ak Sokh pare nañ parce que combat la boo xam ne combat bu bu ñoom ñaar ku ci ne xam nga fi la combat bi mën a yóbbu li war Sokh mooy mu respecté Franc jox ko cër bii ma gis ni moom la ko jox parce que ne da nga respecté sa adversaire mais pas respect bu ëpp parce que bu respect bi ëppee sa adversaire am atu sa kaw Franc aussi la même chose moo ko war mooy respecté Sokh mu xam ne ki muy bëreel nawleem la mën na koo daan parce que bu ko mënul woon daan du jël avance am combat boo xamante ne combat bu metti la. mais communication bi Franc di def. léegi mu wax ak waa Sokh mais da ci tuddaale waa Pikine communication boobu. waaw noon la na ci tudd ñëpp bu muy am ci na ñëpp du risque risque lan Sokh ak Sokh ñooy bëre mais ñaari mbër yu mag lañu ci ku ci nekk ci ku ci nekk da ngaa boot gox Franc daa boot parcelle. bu jugee xale parcelle yu bëri dañ jug te Franc waa parcelle dañ ko yaakaar soq boo Pikine waa Pikine yaakaar soq Ama Baldé ta di ko ànd ak moom boo Niang di ànd ak moom kenn Modou Lo ak Papa Sow ñoo ñoo koy ñoo koy ñoo koy dar kon kom la boo xamante ne du yomb Franc lu ko neex na wax soq soq lu ko neex na wax Franc yoon kenn nekku si lamb la kontaan maa la gën a kontaan di la bëggee di rafetlu sa liggéey di rafetlu sa liggéey bu baax bu brodo bu correct nga brodo bu xool lu rafet nga nga di ko dox di ci làmb te loolu moo nu war maa ngi lay bëggee bu baax a baax di bëggee équipe bi nga yàndal kontaan ci yéen. kontaan naa ci jaajëf